dama nekkoon di dallu sama néeg euh, ma dégg ñu sone fekk euh, loolu sax moo ma yee sama soxna ñëw ni ma am na ñeenti nit euh, ñu ñëw ni waa dig ñu dañ la soxla man kaay man ma wax ma xool heure bi vingt une heure passé ma ne ko ñoom mënuñu ma jël si heure bi parce que ñeenti nit pour man arrestation la ak heure bi pour man arrestation la parce que am naa expérience su

soxna si ñew ni ma am na yeneen nit yu dugg ci muy set alors mu leer ci ci sama sama beut ni c'est pour une arrestation euh, c'est pour une arrestation donc parce que heure bobu ak weekend bi suba dimanche la lundi tabaski la mardi ça risque d'être férié donc ma nit ñi li ñuy def dañ ko planifier donc j'étais sûr que les gens bëgg un week-end au violon ne ma pas pour quel motif xaw pas pour quel motif Maintenant, li ma nekk ci néeg bi activé man maa réseau aussi parce que man damay des investigation comme une police ci laa xamee ni procureur yëgul le parquet n'est pas au courant ci la que ni direction police yëguñu ko après sama jabar ma woo téléphone mu ñëw fekk si ma ci

doole bu jàmmaarloog ñoom mais pour indi convocation vraiment soxlawul loolu yëpp donc bi ma sama jabar waxee loolu euh, euh, bi ma ni euh, waa DIC ils sont pas au courant direction DIC moo tax may wax ma ni sama jabar nañu dem ñu présenté wu kenn ki présenté wu ni moom la adjudant Sagna te adjudant Sagna xam naa ko sama jabar xam na ko xàmmee na ko moom ñëwal na fi indil ma convocation maa ko tegteel kër gi ba mu ñëw ba fii moom moo fi xam loolu moo dalal sama xel ci ni man nguur gi laa ko séqal maanaam dig laa ko séqal parce que bu doon ay samba booy xëy na balaa may jël ay matuwaay dina dana yàgg parce que jël naa ay matuwaay mais temps bi may bi ñuy bi ñuy am pour arriver fii xëy na ñoom bu ñu amoon lu ñu war a def def nañ ko ba pare donc léegi

Je ne sais pas chance, je vais continuer. Parce que le nombre de gens, c'était pour m'arrêter. Donc, je crois que nous devons dénoncer. Parce que nous gens font la liberté individuelle. même si vous avez fait le même chose, vous devons prévoir l'arrestation de femmes et de femmes et de Donc, nous euh, les gens salfagnent les droits des gens. Nous sommes au-delà de 21 heures, en escouade. Nous ngi posté ay auto koñ bi yëpp ñu monté après mon assistante le dira parce que moi je suis resté dans la chambre dañu def dispositif fi yëpp rien que pour une convocation c'est beaucoup trop c'est inacceptable alors légui man qu'est-ce qu'on me reproche xaw ma ko procureur nee na ma fa dossier dig pas de dossier. j'attends de savoir mais de mes investigations est ressorti ci sama euh, saytu parce que man tam damay enquête ni ñom yëg nenañu ni benn société la amal problème parce que nguur gi fimu nek ni comme arrêté nañu Guy Marius tok 48 heures amuñu motif buñ ko collé amuñu inculpation buñ ko collé tay ñu ni li suba ñu ni lële ba temps yi sax procureur changé na version touti ñom légui dañu bëgg euh, peut-être euh, ma am un problème privé ak keneen ko xamni du nguur comme ça buñ ma arrêté wala dara dal ma ñu ni yoonu état nekku ci parce que ça va faire trop cette fois-ci euh, problème ak kenen la am donc c'est pas avec l'état donc procureur mom ci bopam moo ne aw fa dossier xeyna ma am dossier avec un privé ñom nak sen xeyna euh, euh du xeyna na bu ko ñàkk a xam ni euh, information la pour man pour man procureur bu ne xeyna dama am problème ak un autre privé xeyna na boobu du xeyna mu ñaka xam pour man parce que autorité la c'est le maître de poursuite donc loolu yep ci sama bir nek li naa ko moy information yi nga xamné moy mooy daw ci réseaux sociaux yi mo doon évoluer lo information bi mais ba ma woowee bobu ñu nga sama salle té sama téléphone dama ko soxla kon dëgg la ñëw nañu sama kër dëgg la wa dik la donte wa dik démentir nañ ko dëgg la dañu ñëwoon pour arrêter ma parce que convocation heure bobu nga indi onze personnes dont des des hommes en gilet de combat en gilet pare-balles mais man man dom adama là, convocation ils étaient venus m'arrêter su fekkul woon li wax samay droit avec pression réseaux sociaux parce que ñu ngi lire téléphone ni réseaux sociaux yi lu c'est au-delà des heures légales le chemin

dafa am lo dañ ko wara bayyi parce que man suñu ma fekkul nañu convocation bi sama soxna parce que nit ki day am domicile fi mu dëkk mu nekk ko am soxna waxuma la waxuma la xarit soxna war nga ko convocation mais liñu wara bayyi moy convocation nit bokay day am mais sen convocation lenn lañ invariablement pour affaire le concernant pour affaire vous concernant pour affaire vous concernant du motif les yow au bout la va sa waa kër tout xam euh, lan lañ lay tuumaal lan lañ lay reproché ak lan mo tax ñu yóbbu la duñ la wax war dañ la war wax ni da nga am plainte bu joggé ci diw wala da nga def déli sangam wala dañ la fekk ci nangam mais war un am motif mais pour affaire vous concernant c'est vague loolu ken waru ci waru warutuñ ko def ci convocation parce que sa avocat bu ñëwé sax du xam gi avocat am tok na ay ñaata fan xamul luñ koy reprocher. loolu mo wara jeex il faut pas s'amuser avec la liberté des gens parce que ay institution lañu Ñom ñoo yor suñu karangé, suñu sécurité justice moy tax lepp jup jaar ci yoon mais ñom ñoo wara ñëkke jaar ci yoon respecter droit doomu aadama yi parce que fekk nañ fi benn journaliste 6 heures du matin dugg jaxase kërëm def ko sans dessus dessous ci lo loo mais mais mais du deug du yoon euh, Jean Diop lolu atteinte aux libertés individuelles Guy Marissa ko atteinte aux libertés individuelles la tey nit pendant 48 heures amo chef d'inculpation, Boko en cours de détention préventive euh, euh, de garde à vue nga ko nga ko nga ko trouver chef d'inculpation. Il xamni day varier à tout moment lolu c'est s'amuser avec la liberté des gens Cheikh al sen defoon nañ ko fi lu mel non collé ko fi ay motif ay affaire téléphone terroriste ak yoy té dara amu ci téye ko fa 6 mois xawma ma ñaata temps après bàyyi ko ci dañuy fooye renseignement d'abord renseignement dañ koy fooye té renseignement lu sérieux la bu nopi dañuy fooye liberté dëkk bi on doit pas s'amuser avec le renseignement c'est sérieux té lolu mo commencé am Sénégal parce que ci base du légère yoy lañu interpeller interpellé le Cheikh al Sène ci base du légère yoy la ñu interpellé euh, nu mu tuddati ma man tamit en en en 2017 di ma collé ay motif terroriste té ay faux renseignements Qu'est-ce qu'est-ce lañ yoroon lolu je crois que fimu nek ni les services de l'État euh, war nañ len xolaat ni ñuy doxalé sen liguey donc ñom dañu dañu dañu rebrousser chemin parce que presse bi alerté na maa ngi profiter pour remercier vraiment toute la presse parce que taxaw nañu sen taxaway ci instant yi pendant que nous sommes ngi ci pendant que nous ngi sama salle échangé na ci ak ay journalistes yu bari ak sites en ligne yu télévisions. Euh, ak ay télévision yu bari ñu bari def nañu effort ni jot mënuma jot mais ñi nga xamni jotuma nañ parce que moment bobu dama soxla won sama téléphone man am téléphone donc nous def nañu Et je crois que travail d'alerte bobu motax ñu génn sama kër sinon dañu ñëwoon pour yóbbu mais opinion publique bi xam ni ils sont chez moi au-delà des heures normales et que j'étais pas encore arrêté ils ont reçu des institutions parce qu'il se passait sans cesse le téléphone malheureusement sama assistante mënul fait, sinon moom mu expliquer leen non jotuma convocation bi laaj naa leen ko sama jabar laaj na leen ko ñu ni duñ ko ko jox man la concerné man lañ koy jox donc ils n'ont pas laissé ici de convocation jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas convoqué à la DIC

amul sama dossier Yegul, te yabal dik direction dig yeguñu kon dafa melni kenn ci nguur gi mo moy def service camarade mo bëgg ñu arrêté ma te jaarul fam wara jaar parce que yoon dafa am nit pour ñu arrêté la il faut ñu porter la plainte wala nga def lu ñu weng flagrant délit wala procureur euh, euh, soxla la ñett yoyu xawma lan mo ci am procureur soxlawu direction dig yëgul police euh duñu ay civil dañu am hiérarchisation tey jii adjudant Sagna bu ñëwee sama kër té kilifaam de c'est un problème c'est un problème parce que est-ce que jotuñu ay instructions de gens qui sont dans l'appareil d'État qui veulent que je me taise su fekkee ni loolu lañu nous euh je crois que euh, avons un problème té une tentative d'arrestation bini xaw luñ may fexeel mais ma leen di conseiller nañu fexe ba seen pexe bi ñuy jëf def ci man ma bañ cee mucc man nañu fexe ba dem jusqu'au bout de leur logique parce que suma ma muccee ci seen pexe bii xam nga ñoom sama communication kese attanuñ ko waxtu ak samay pexe ñoom bu fekkee ni mucc naa ci seen pexe ñoom du ñu mucc ci sama pexe kooku man maa leen koy wax fii parce que nag man je suis républicain man dama nekk ci débat public bi di wax ak askan bi man ma sax ak état bi man yéen ñi may déglu yéen ñi may suivre man yéen laa leen laay leeralal li leen di nëbb sàcc gi ñu fi nekkee euh, euh, euh, crime économique yi ñu fi nekkee tayle gi ñuy tayle suñu alalu réew man ci loolu laay wax te ba léegi. kenn dindiwul len ci lama nek di wax président Macky Sall ci bopam nee fi ci télé du ben du ñaar total fayna 10 dix millions de dollars manam cinq milliards ci signature ben décret bu mu signé te loolu du deug du yoon euh, euh, loi da koy téré délit le. loolu délit le suñu ben texte de référence prévoiru ko mais nañu tontu ci loolu au lieu ñuy naan dima ma di ma fexeel certainement ben société privée

pénalu diffuseur bi manam Bour mi mo wax ci teleem bi lo xamné du deug Bour lay ñëk lor parce que mom moy diffuser moy premier responsable bi man suñu ma ci indil problème en tant que complice lay doon wala co-auteur mais ki nga xamné mo diffuser moy responsable premier kon man suma xamé xamee suma su ci télé wala radio wala ci euh, presse en ligne di wax damay wax ak responsabilité lo xam ni wéru la te nga njort ko amna nuñ koy waxé lo xam ni na la amna na nuñ koy waxé lo xamni lérou la lolou do ci dugg man duma ci dugg amna dossier yu bari yo xamni ma ngi ci tok heure bi goudi lañu nek nekk adjudant Sagna il existe il est à la DIC légui yeen dem leen DIC ngeen laaj adjudant Sagna ñëw na fi indil ma convocation mom mo fi dellu ci tay sama jabar xamé nako ko xam na ko fi ñewoon le problème kay moy lutax chefam chef nous sommes procureur Yegul. pourquoi si nous sommes ci dictature débat euh, des médias euh, TV mais collaborateur bu bu APR wax wax ju Tang ak Ahmed Aïdara gendarmerie dafa ñew fofu ci man dama gendarmerie pour défendre les médias ak samay nit ñu indi fa ay pourquoi parce que euh, euh, Ahmed Aïdara werante na ak ben responsable APR vous woo gendarmerie gendarmerie pas foofu quoi Nous, ni arrêté Bogan. loolu ce yo fi yooyu fi wara a jeex Sénégal ñun n'y Nous sommes ñun askan wi procureur ak président dañ fi pour nous. dañ fi pour yon, pour nous. pas pour nous, jël sen de compte Nous de compte radicaliser lii mooy tax nit ki euh, lii mooy xeexloo nit parce que nit ki bu buñ la dóoree nga fay ah moo tax ma ni nañu fexe ba mu moomu ci seen loxo parce que bu boobaa dina ñu jàkkaarloo beneen jëmm beneen jëmm parce que man fi mu nekk nii askan bi rek laay waxal waxaguma ak ñoom dinaa wax ak ñoom nag kon parce que dama toog ci seeni mbir ñoom mënuñu ma xam te man dama leen xam ba jeexal leen tàkk. li leen yóbbu encore une fois mooy presse bi presse bi ma doon gërëm sànq. di leen gërëmaat au passage dañu lire ci Seneweb Dakar Actu ak yeneen presse en ligne yi télévision yi ñu ngi def ay spot ak yooyu ñëpp ñu ngi ciy wax ni mu sama kër au-delà d'une heure légale partie information boobu moo leen delloo gannaaw au-delà de l'heure légale parce que bu doon bëccëg du am benn problème wala avant 21h, heures du am benn problème mais au-delà de 21h, heures un week-end nga ñëw ay 11 personnes dugg ñuy sol ay gilet yooyu pour indi convocation c'est c'est c'est trop gros donc loolu moo leen dellu loo gannaaw te dañoo jot ay ndigal ñi leen activé nag du du du commissaire du procureur mais adjudant Sagna il est bel et bien de la DIC il est bel et bien de la DIC indi na fi convocation sama jabar xàmmee na ko te moom moo fi ñëwoon ak ay nitam ak gàngooram ak sais auto xam nga loo xam ngay topp man xaw lan man maa leen di certifier ni adjudant sanya waa te convocation sama jabar xam fi kenn ci nguur gi yabal parce que euh, dañu bëgg euh, xëy problème mais loolu mais nañ ma teylu rek def faux pas mais wala bu lu reproché mais nañ ma woo bëccëgu ndar kaam man fuñ ñu ma woo muy ñoom xam nañu fi ma nekk am nañu sama numéro de téléphone mën nañ ma géolocaliser ci lu ma nekk xam nañ ko gis nga police man xam naa ni police di liggéey ñoom buñ ma bëggoon jàpp dañ may jàpp bopp ci lu ci lu leer suñ ma bëggoon jàpp du ñu xaar ba 21 une heures ñu ñëw ni dañ may indil convocation mën nañu planqué wu fii ba may dem boutique wala fenn sax wala may déplacé wu en plein déplacement lañ lay yóbbu

tey jii bu ñu bëggul bu ñu ma buggoon yóbbu dañ may yóbbu li leen li leen la delluloo gannaaw nag mooy li leen yebal rek dañu téyewul ci lu dëgër man nag ci lu dëgër laa téye caaxaan du ma yóbbu ñoom bu ñu amoon lu leer du ma fi fanaan te bu ñu amee lu leer suba ñu xëyal ma li ci kanam rawul bët euh, li may tëjee rek mooy affaire manipulation dafay am objectif man ban intérêt laa am pour décrédibiliser boppam joxe xibaar bu wérul man ban intérêt la am police nationale lay waxal division des investigations criminelles la wax ni mom mo ñëw sama kër loolu bu wérul mais dañ may jël ci loolu déli la police lay tuumaal ni dañ ñëw sama kër au delà des heures légales lim turu ben agent adjudant Sanya. mais loolu leer na donc fii manipulation amu fi dañu am benn taxawaay boo xam ne dafay déranger ña muy déranger ñu ngi sàkk ay pexe pour xëy na intimider ma wala pour soustraire ma du débat public mais loolu du sotti donc fii lépp lu ñu fi wax lu wér la lépp lu ñu fi def lu wér la ñun amuñu benn intérêt pour am nañu visibilité quand même amuñu benn intérêt pour manipuler opinion bi wala à quelle fin à quelle fin loolu yanul maanaa kon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.